accompagner madame le maire ci liggéey bi nga xamante mi ngi ko deugmal boobu ba legui bir Kaolack alors jotna na jaar gouvernance amna na lum liggéey jot ak autorité administrative yi euh, am na lum liggéey ak euh, euh, poste de santé yi nga xamante ñi ngi Kaolack yóbbu fa ay détergent tay muy law nak au niveau communautaire nga xamné euh dang délégué de quartier yi fekk président conseil de quartier bon madame le maire euh, daf nous, top mesure d'hygiène euh, mais aussi nous ko été par une sensibilisation ba nga xamanteni euh acteurs yi à la base muy délégué bi président conseil consultatif du bureau bi nga au niveau des quartiers

amna ñinga xamanteni nga seen loxo jotul seen ginnaaw alors euh, en tout et pour tout war nañ def les 45 quartiers de Kaolack euh, quartier bu ci nek dana am benn loo ba nga xamanteni dañ ko fa wacce bo jëlé pratiquement article yépp ci eau javel savon li nga xamanteni war nañ ko mëna dimbalé nit ñi mi ngi tollu ci 4050 article ya nga xamanteni bëgg nañ ko euh, bëgg nañ ko tasat bir Kaolack inshallah allah. ku ne xamne na ne rôle maire. dafa war a jege population te jege sa population mooy su ñu nekkee ci tolof tolof aussi nga xamal leen dimbale leen moom nag ci ndimbal loolu defe naa ne nit ñi seetaan nañ ko bi affaire yi commencé ba tey mi ngi ci mais nag dafa am loo xam ne maire munul fu ne mu taxaw fa mais nag dafa am ay délégué de quartier am ay conseil consultatif de quartier loolu moo tax nag tey mu indi lii di ko teg ci loxo délégué de quartier bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ne ci quartier bi ñu mun leen ko jox pour wan leen ne ci jamono jafe-jafe yi ñu nekk madame le maire mi ngi leen di xalaat defaale ci aussi sensibilisation gis ngeen yi ñu ci boole délégué yi nag ak conseil de quartier yi ñoom ñooy loxoy maire bi ci quartier yi moo tax nag comme maire mënul fu ne nga taxaw fa mu ñëw ci ñoom bëgg nag ñu jàppale ko ci sensibilisation bi dugg ci quartier yi wax ak seen population wax leen li ñuy moytu wax leen li ñu war a def ndax yàlla musal ñu ci feebar bii nga xamante ne mooy natt bu yàlla indi mu jeexal ko ci jàmm ak salaam. di ci kontaan bu loon li président digal bi mu joxe ne lu ëpp trois quatre personnes bu ñu daje kon dëkk bi yëpp a daje parce que li ngeen fi teewal rëy na lool maa ngi leen di gërëm nag leen sant ci turi dëkk bi yëpp di ñaan suñu borom lii nga xam ne yàllaa ko fi indi yàlla na ko fi yàlla jëlee yàlla na ko fi yàlla jëlee ci daraja yonent bi. di am mbégte lool di leen gërëm di leen sant. nit ki aussi comme ni ñu koy waxee wax naa ko sànq ci rajo bi boo ne nit ñi mel leen ni day fekk yow nga joxe le bon exemple kon le bon exemple mooy lan mooy mu indi saabu ak madar pour jàppale population yi pour ñu wane le bon exemple war a raxasu ak lu mel noonu lépp lu ñuy tere eh, pour feebar bi ñu jéem ko eh, vraiment def. ñu nekk ay ndawam vraiment loolu mooy suñu kii ci loolu mooy suñu rôle ci quartier yi. Euh, c'est des remerciements intarissables parce que wax ji bëri woon na nit ñaa ngi doon wax mais gis nga tey vraiment sigil nañu indi na lii ba fii teg ko suñuy loxo euh, may ñu euh, cër te lii kii rek la ni ñu koy waxeeti début rek la des na leneen ak leneen ak leneen. xam nga lii comme ni koy tubaab waxee euh, geste bu kii la rek euh, geste symbolique la geste symbolique la pour ñu gis rek mais li nekk si ginnaaw mu ngi ñëw